daara yi ñuy tudd nag bañ daree joxe ba léegi te ñu ci septième édition man am naa daara ju may tabax te bokk ko <laughs> te kat maa ko aajowoo naa ko lool am na ñu ma ciy jàppale waaye nag ñu ma ciy jàppale moom yàlla dogal na sëriñ nii kenn jiitu ko ci mas naa koy wax docteur Khadim Sylla ne ko sama daara ja ca Touba moom ñaar ñaar ñoo ci man sëriñ Seck sëñ Daam Baabu waaye ak sama doomu ndey sëriñ Gallas Mane kon nag association bi xam naa tey nag mu beneen yoon dara ñu bàyyi xel ci li muy séddale waaye ñooñu daal maa ngi leen di sant ci seen taxawaay ndax daara jama ma ngay sori te ñooñu ma wax eh, ak mbokki taalibe yi nga xam ne nag yàlla daf ma booleeg ñoom ma doon seen bunt ci Serigne Touba at mu ne ñu dajale ñu def ca lañu man ak ñeneen mbokk yeeg soppe yi. waaye ñooñu ñu ma wax nag ñoo ci man moom ñu ñaanal leen suñu borom dolli leen kàttan dolli leen wér euh, di sant ñi ma bokkal liggéey bi bokk yi xëy na ñu bari bi ñu ñëwee ci man lañ seen ma toog ci kaw waaye maa ci gën a néew lu may def liggéey bi yépp ñi ma àndal ñoo koy def man nag la yàlla nattoo ma ne ca kanam waaye maa ngi seereel mbooloo bi de ñi ma àndal guddi ak bëccëg du ñu nelaw te kenn du ci xëccoog man dara léeg-léeg sax moo tax bu dara xewee duma ci bëgg a teew ndax bëgg leen a bàyyi ñoom ñépp am seen xalaat wax ko nañ ko bëggee ndax bëgguma doon gàllankoor mukk ci ñuy wax seen xalaat ndax yëg gu ñu am ci man ak war ma ju ñu am ci man loolu nag du tee nag fu ñu war a taxawee itam ñu taxaw fa def lañ war a def kon maa ngi seeral mbooloo bi ne liggéey bi ñu fi wax lu mu rëy rëy dañu xam ne du man ñi ma ànd la kon nag dañu ñaaral mbooloo bi tey xam le ni mbooloo bi ngi tàllal loxo ñëpp liggéey la boo xam daal sumb nañ ko bëgg nañ képp koo xam ne yaakaar nga ne am nga foo ci mën a fare ñu ngi lay tàllal loxo pour ànd ko ak yow ndax jàpp nañ ni war naa gën a dox jéego yu gën a gaaw gën a sori te loolu nag mbooloo rekk ko man ñu ngi tàllal loxoon yépp di sant itam mbokk yi fi teew yépp xam ngeen ne salle bi gis ngeen ko ni mu fees bi mbokk yi yépp ay wëllëre maa ngi gis ñu bari ñoo xam ne sama lam ñu mën leen tudd waaye sama xol moom gis nga leen bàyyi na leen xel muy ca géejewaay jumaa ja ñu nekk ak ci yeneen dox ak wëllëre yeeg soppe yi fu ma xool wet bu ma xool gis mbokk walla wëllëre bu teewu sama làmmiñ mënu koo tudd waaye nañu xam ne ñépp samay bët gis na leen waaye samay xol sama xol gis na leen euh, di sant teewaay bu baax a baax di jégalu itam ci yàkkam gee mën tudd ci làmmiñ waaye xam naa ñi ma ci xam xam nañ ne yëg naa leen te bàyyi naa leen xel sant rek di delluwaat di sant tey ñaanal kilifa yi ci sunu borom gën leen a jàppale gën leen a kenn ku ci nekk ca fa nga nekk yàlla na yàlla dolli ay ndam ci diine te jaarale ko sa loxo loolu nag ñu tudd seen sëriñ Muntaxa Mbàkke bi nga xam ne sunu waajur la waaye itam ay jëfam taxoon nañu tudde ko bis bu mel nii di ñaanal yàlla dolli ay ndamam dolli eh, ak wéram ba li mu mébét yépp mu def ko waaye defal ko mboolem këri diine yi ci biir réew yépp eh, xëy na mënuñoo tudd ñépp waaye defal ko ña nekk Tiwaawan ña nekk Njaasaan ña nekk Lewnaan ña seen ak Medina fépp fu kër diine yi nekk te xam ngeen ne lu tasaaroo la ñi koy liggéeyal bari loolu itam ci réew waaye ñëpp yàlla na yàlla ngi euh, sant ñëpp daal defe naa di mën tënk sama kàddu foofu xëy na ñi nga xam ne ñoom la ñu tudd ne te woowoon leen ne ñoom lañuy jox li li ñu war a jox te ma di ko wax toujours ne association bi amu ci lu dul ñu jox ko mu jot li kon. mas naa ci wax ne am na ku ma mas a dajeel ñu jox ko ba noppi mu di ma gërëm ma ne ko ëpp naa def man kay li may laaj moo li may ragal mooy ñaanal ma ba lañ ma joxoon ma bañ koo jaarale fenn waaye jox ko ñu ma ko wax jox loolu rek la ñuy ñaan kuy ñaanal association bi mooy ñaanal ko ba li ñuy teg ci loxoom bu dugal ko dugal fa mu war a waaye kenn waru koo sant jëf ci ñi ko yeeyoo mooy ñu jël seen alal di def ci association kon ñu ngi jaajëfal ñun di ñaan suñu borom mu may nu lu fekkee waa ko at yu bare bari te yàlla dool dolli wér dolli xéewal sëriñ bi nga xam ne moom lañ ko tuddee yàlla na yàlla dolli kàttanam dolli wéram dolli xéewalam ba luy baax li muy def waxtu ne yàlla koy gën a man ñi ñi muy dimbale sax yàlla ñu dem moom itam ba lu baax li muy def ñu man ko te su boobaa lépp aw yiw lay doon ci moom yàlla na ko yàlla def xam naa kon kàddu gi bu ñu doppee rek bu bu jëlaatee kàddu yi xam naa ki koy tëj rek mooy suñu kilifa di sëriñ Xaasim mu tëj ko ci ay kàddu ak yaan insha allah